baa du ah oui oui moom sànq mi ngi koy wax see waxam ne na niveau français am dafa baax. te yaakaar naa ne bokk na si artistes yi nga xam ne dañoo dem école dem jàngi art tamit. Mhm. parce que yaakaar na ne yàqu si dara. Mhm. donc dañuy daal di rek commencer suñu quiz. Mhm. Euh, dama lay jox ay capital nga wax ma dëkk yi en fait yan dëkk la. d'accord voilà soo paree ñu commencer. ay kenn yorul questionnaire yi foofu. te téléphone bi da nga koy dëpp. alors Caracas dëkku capitale ban dëkk la. Caracas. naa la joxe indice nag soo bëggee comme man dama baax. jox ma indice ko. voilà bi Venezuela Serbie wala Lituanie. non xaw ma. xamuloo ku mën a sauver l'honneur si plateau bi. Venezuela merci beaucoup maman. maa ngi yoreel benn tàngal mant. beneen yoon bu trouvé ñu jaasi la. alors Manille Manille capitalu ban dëkk la Maldives Philippines wala Népal. waaw mais attends yow tamit. <laughs> voilà léegi question ma jox la bu gën a yomb après ñu ñëwaat si question yi difficile yi. Nairobi ban capitalu dëkk la Géorgie Oman wala Kenya. may ko mu réfléchir dafal ndànk. may ko mu réfléchir. joxal mais yéen émission bi chaque jour questionnaire yi lii lay mel. ah ñun dañuy ñun xam nga dañuy divertir ba pare jàngale ba pare xam nga man man Amath Diop. collège euh, trompé na ma Cheikh man dimbali Ahmed mais <laughs> Ahmed sa ngi message de Ahmed boo mënee téye sa téléphone <laughs> Cheikh sama téléphone mi ngi nii sama wet yow tamit xanaa déggu <laughs> eh? ayca notification yi voilà Nairobi capitalu ban dëkk Kenya wala Oman wala Géorgie <laughs> maa ngi bàyyi euh, euh, Kenya Kenya voilà donc troisième question. gis naa gis naa kee bi mais ñaar bee <laughs> la réeroon. <laughs> Lima capitalu ban dëkk la entre euh, Ukraine ak Pérou du ma la jox trois réponses ñaar laa Lima capitalu ban dëkk wala Ukraine. mais est-ce que du tamit. Hmm, nangu ko de. ah nangu ko de. <laughs> mu ne ko. clim yaa ngi tàkk ah dama ko wàññil ma jox ko ñaari réponse xam nga da ngay jël bii wala nga jël bee mun naa ko jox trois réponses ba dama ko jox ñaar pour wàññi kii yi. tan lu sant rek bu nekk sa xel rek boobu la waxal rek bu ragal. waxal. Euh, Ukraine ak Pérou laa ko jox capital lu mooy capital bi pays bi lan la. Pérou. waaw Pérou. <laughs> am na suuf. <laughs> léegi dañuy xool naka lay avancer après ñu ñëw si beneen dëkk Amsterdam mooy capitalu ban dëkk Costa Rica Pays-Bas wala Arabie Saoudite ah. dafa mel ni invité bi am na lu ko feeñu de ci musu non invité bi dafa mel ni am na lu muy xool ñu ñëwaat si Mani bi ma waxoon sànq ñu dëppoon euh, capitalu ban dëkk la Maldives Philippines wala Népal Mani mooy capital bi. Mani. waaw. <laughs> Mani xaw wala Népal. li nekk saxel la waaw. Philippines la waaw. Eh. Eh. alors. di naturel mu dama lay jox ñetti dëkk Uruguay Kenya ak Mexique bon Kenya mën nañ ko tëbal parce que sànq ñëwoon na ah. Uruguay ak Mexique capitale bi Montevideo la ban dëkk la Montevideo comme yow mi Montevideo quoi non <laughs> mais capitale bi dëkk bi Uruguay la wala Mexique monté vidéo. waaw ah, mooy <laughs> capital Uruguay mooy capital Uruguay wala capital Mexique. Eh, Uruguay. Eh, eh, mais xanaa dafa lu la feeñ entre temps. am na ku koy wax non taxawal. ah yëf yi naturel. waaw waxal léegi léegi <laughs> wax wala jigéen. d'accord non xaw ma. non mais parfois aussi nga jóge si ay nelaw rek yeewu de. waaw bilaay. mais li ngeen maa xaw a li ngeen xelam rek lay wax. li ngeen maa xaw a tegaale bët xaw maa soxare. ñaanee la def moom. vrai ou faux foo ko gis. waaw jàppal ne bu dul faux bi pare la. <laughs> bu dul moom la américain naan true ou false. <laughs> léegi question yi doy na de non nañ demaat tamit invité bi dafa commencé ay ah, du ma posé yeneen. <laughs> Ah? non triché ah triché wu li la ci xelam rek non dama yeew dama yeew. alors bi capitale bi capitale bi maanaam capitale capitale bi Kiev la tudd Kiev. dëkk bi Finlande la Ukraine wala Bahamas. Kiev Kiev mooy capitale bi. léegi dëkk bi Finlande la Ukraine wala Bahamas. Kiev. dina taxel la rek ba ma day boobu dafa sax. gis nga ni muy laaj yi. répété waatal capitale bi Kiev la tudd Kiev. waaw Kiev léegi dëkk bi ñu ne la Kiev. Kiev. KIEV. léegi ñu ne la dëkk bi Finlande la wala Ukraine wala Bahamas. Bahamas. kee mooy tapé Google di ko wax rastaman bi. rastaman bi ko <laughs> non mais fii fii fii ana xool rastaman. fii ci tu ray ray rue bi kii. moom mii ah, nu mu tudd bu lëb. bi du du Bahamas Ukraine la. Kiev mooy capitale Ukraine. di gis nga ni Google. gis nga bàyyi bu ñu arrêté nga réer. lan du dem vaar rek xool. du dem vaar. non vaar moo ngi nii marqueur bi mooy parce que sama réponse source yu la laa ca. Madou ki lay siffler nax na la de. waaw li paa di jël dernière question pour xool na di nga trouver. waaw dernière dernière dernière. capitale bi Asunción la tudd. Asunción. léegi dëkk bi Norvège la Paraguay wala Uruguay. waxal yow mi koy wax ne waxal. capital bi Ascension la. sax maa doon xool xoolal côté bii rek. xoolal bu bële bi moom mu ngi bind moom ki nga denc. Norvège Paraguay wala Uruguay. laaj Google de. na dëgg la. nga ne capital nu capital bi Ascension. léegi dëkk bi Norvège la Paraguay wala Uruguay. mais bu dul Norvège di di di Paraguay wala Uruguay. <laughs> Paraguay. Paraguay laa trouvé na ko. non mais kenn musul gis lu toujours bien nag ñu testé niveau artiste yi ah. uh-huh. pour xool ndax ci classe yu la ñu yem. wala romb nañ ko ñoom nee nañ classe Famaare am na bac CM2 ah. waaw waaw te yow mii romb nga ko nag. moom am na bac de. ah mais wax dëgg yàlla ñu ay kii ay bachelier de. Ah? macha allah mm-hmm. léegi Fama euh, li waral ñu daje fi xëy na ñu ñëw ci muy faru rab. Mm-hmm. maman mu ngi koy brosser léegi. Mm-hmm. Euh, pourquoi faru rab. da nga ci am expérience ou quoi. mais oui ngàdd parce que koo gis. am nga day góor am nga faru rab wala geru rab même bu fekkee. Euh, nekk waxew ñu ko premier degré. Mm. comme faru rab bi nga xam ni moom moo lay feeñu guddi wala genn rab. Mm-hmm. Mm-hmm. am nga ku la jombal daal am nga ci koo xam ne mm. voilà kii sa faru rab la wala sa genn rab. xam nga li nga parfois loolu dina la dal ci nit. nga nekk nit koo xam ne moom. Hmm, li nga mën a def ak ñeneen ñi. ni nga mën a ni nga mën a. mën a maîtriser ñeneen. mën a moom dalay xaw a donc comme fi tamit dina la dal. man d'habitude man faru rab naturel la. yow faru rab hmm? naturel la ci jigéen ñi. non man faru rab la <laughs> xam nga. aussi da ngay gis ñoo xam ne ay ay ay gelu rab lañ. waaw dañoo mel ni ay rab. dëgg def sax bokkul ak yi nit ñi di def. Mm-hmm. ay yëfu rab la ñuy def. <laughs> wallaay ndeysaan. ah na fi jiyee ak am. Ah. maa la wax lii. waaw voilà. Mm-hmm. donc euh, parfois way euh, naan wax ju ñu suukar la. Mm-hmm. et boo da dajale ay mbir yoo xam ni. dafa dafa dafa daje. dafa daje ci benn affaire nga boole ko def ko benn moom. Ah. defe naa su ma juumul loolu la ñuy wax champ lexical. Mm-hmm. Ah, mm-hmm.